miitum ɗum waagan param to i lambo to i weybati aggeego taway kaɗo waɗa way Moustapha Amut la jamba way aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ñuy déglu ñoo ngi tey dellusiwaat fii ci kër Serigne seex Fall Mbawar ginnaaw bu nu ko nuyoo siyaare ko ñaanal ko fandu gudd ak wér di siyaare baax xalifa général de Mouride Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko tey ñu dellusiwaat sunu émission bi nu baaxoo amal di ci wax ku wal mburu tudd ab dëkk tey ji nag ñu dikkaat ci dëkk bi nga xam ne moo di Paaleen Touba Paaleen fekk fi Serigne Cheikh Fall Mbawar euh, ni nu ko baaxoo woon daan ànd ak moom di ko fi dikk te waxtaan yoo xam ne ñu baree bare wax yàlla ñoo ko ittewoo dama ko waxoon ne ko murit yi ñoo ma woo ne ma tawatal te bul na woo saw làmm <laughs> xar nu kon sëñ bi murit yi ñoo ma yebalaat ci kër gi rek xanaa ñu nuyu la siyaara ba ñaanal la fan gudd ak wér jox la nga nuyoo bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu saddad lisaani nawir janaani safi hamaani wasit braay sasarta dayra li xuttamay refal tak si jawar limin diraay an xisiyaali min adalaali wa bil ala xalis raay xin xitaab xulil kitaab waxul mutaab yastra yaa xayr rabbi xayr mu rabbi taayib taxal baxtati jaay sali wa sallim alal mutammi wa kul yasin bilante ay wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seeni taxawaay di sant mboolem di ci jiital Seydou sëñ Mountakha di ci tegit mboolem ñu bokkal yoon wi ak sama moromi taalibe bi yëpp noo ngi leen sant di leen gërëm ci seeni taxawaay bu la murid yi yebalee nag murid yi moom ca nun ndigalal sëñ bi la ñuy déglu kon ci sëñ bi lañ la war na yebal <laughs> am kenn ci taalibe yi la da <laughs> ngay la waykat boo <laughs> kon tey ñu ñëw mag waa mbokk yi kon tàmbale nañu waxtaan wi sëñ bi tey ñu dellusiwaat ci sëñ Aliou bi nga xam ne moom wax dëgg yàlla ku tudd penc mi tudd ko ndax moom la fi sëriñ Fallou dëloon eh, mu nekkoon fi eh, doonu fàttaliwaat ci ñëw ki nga xam ne ñëwoon na ko fi ak pas-pas bi mu ci wane woon. jërëjëf sëñ Aliou de daa doonoon kenn ci doomi Cheikh Ibra yi ba noppi di taalibe moo moo doon loolu sëñ Abdou Lahad di bind naa ubadu rabbi wa ibnu Cheikh yi daanaka moom moom la defoon Cheikh Ibra doon waajuram waaye muy sëriñam itam bi mu fi jógee ko fi nekk ci doomi Cheikh Ibra yi ànd na ak yow ba sëñ Fallou woo ko ba mu koy woo Mbawar la ko woo mu jógee fu mu woo ko mu ñëw fii mu ne ko fii toolu soxna Awa bu saawoon dama ko defoon addee Cheikh Ibra defatuma ko mag moom dama bëgg nga toog fii di samam Cheikh Ibra muy sam sëñ Touba waxuma la Mbawar gañ la wooyee waaye mbàkk gi sax mayetuma la nga dem fa wala gébb ca sëñ bi toogee fii nag sax fi ba ba bi sëñu blaat mi i jaxasoo giñ jaxasoo taxaw na sëñu blaat ne ko damay dëkk Ségué ñaanan ko fii marché mango gi nekk ñi di ko wax marché xaay marché mango gi la tuddoon boobu ab terrain la woon boobu sëñu blaat da koo laajan sëñ Aliou sëñ Aliou jox ko ko am na ñu sax su kër sëñ Abdou Sakor foofu la jëkkat ne sëñ bi indiwaat ko ci côté bi ñu jox foofu sëñ sëñ Abdou Lahat ne ma yore yëf fi nekk sëñ Abdou Lahat ko fi doon Ibra ngay ñoom booba ñu ngi ci daara ji nawet nañ fi sëñ Fallou fi romb bis nag jëm Mbàkke gis ko naan sëñ bi da ngay sëncaat da ngaa da ngay dooliwaatub sanc foofa sëñ bi ne ko déedéet sëñ Abdou Lahat ma ko laaj ne daa bëgg a dëkk ak man sëñ Fall ne ko loolu addiyee Cheikh Ibra laa ko defan ba tey Cheikh Ibra laa ko jox moom sëñ bi ne ko man de dama ko kudul mën a yëkkati ko feeg wax ko ci dara de moom wax dëgg yàlla dana ma diis sëñ Fall ne ko bàyyil man mii ko man mii ko joxoon Cheikh Ibra maay wax ak sëñ bi dam naa ko woo mu ñëw wuuf jumaay baayam jee ba ba mu koy moom ci la sëñ bi laa jógewaat foofu dellu fa fee nga xam ne kon ci taalibe lañ ci dëkke woon ci lañu fi saxewoon jërëjëf mbokk yi kon sëñ bi ñu dikk ci laaj beneen bi ci topp maa ngi lay laaj ba xam sëñ sëñ Aliou danoo wax ne dafa jàngoon français jàngoon na français benn bi ci des mooy ndax Cheikh Ibra bi muy yebal dooma yi ñu dem armée bokkoon na ci wala déet. loolu de yàlla def na jotu coono bokk jàng français moom defal na ko jàng naa alxuraan fii ba noppi di jàng xam-xam mu yebal ko ci sëñ kër Diop ca Ndar. taalibe Cheikh Ibra bu mag mooy ki njëkk a am machine ñaw ci réew mi daanañ ñawal sëñ mag bi ay yére ma di ko yóbbu. kër gu Babacar Diop googee nag la doon nekk di jàng arab di di jàng xam-xam ndax boobu fekk na ko jàng alxuraan ba noppi lettre yi daan bind Cheikh Ibra da ko daan taalif ba Cheikh Ibra di woo ci taalibe ñu mag yi naan yow mi jàng arab nag ñëwal Aliou di lettre mi da koy woy di ko di ko wanaat bi ñuy laaj école fils de Cheikh nag Cheikh Ibra joxe ko ja léegi nag mu bindaat Cheikh Ibrahima leetar ne ko man de li ma jaaxal alxuraan jeeg xam-xam bi ma jàngan nga nga fabaan ma dugal ci nasaraan bi Cheikh Ibrahima ne ko ndigal nga ci am te mu munu maa gàntu ndigal Cheikh Ibrahima ne ko ndigal nga ci am te xam naa nasaraan du lekk sab xol loolee tax mu continuer ci bi jàngee mook ay Mor sa Ndiaye ak ay Samba Thiam ko jaw ak mm, bàyyi Samba yàlla bi sax da daan ñëw fii Cheikh Yaaba Diop nee ñoo bokk na toogu ca Ndar ak sëñ Omar Boussa ak may sa mbay Sall dem doomi ma kodd Sall may sa mbay sax am na ku sëñ bi yoroon ko mm, kam bokkan day ak bàyyi may sa mbay ku jël ndax jaxasoom ak sëñ bi léegi nag bañ fay jàng bañ bañ bañ eggal ñi di leen defi chef de canton di leen fal sëñ Aliou ne leen wan man jànguma ngir falu dara kama yebaloon ma jàng si ci laay dellu ci moom wax ko ko la ñuy def leen chef de canton mu ñëw ci mu ñëw ci Cheikh Ibra ko Mbawar ne ko tund Mbawar wooyu laa bëgg nga féetal ma fa nee na nee na fa nekkee Maysa Mbay Sall doon na fa chef de canton Samb doon ko fa ak beneen chef de canton mu ne ñett ñooñu ko fa doon ñëpp nag ku ci ne bala ngaa jot ci nit dara da nga koy yeew ci naaj wala nga duma ko ganaar sax ku la ko joxoon waxuma la giléem waxuma la nag waaye ku la ci jox ganaar sax joxu la ko ci coobareem ragal la la ko joxe mu ne nag moo tax eh, dañ ko daan ñaani ngan nag sëñ bi di leen dig di di kii rek mujj ñi di ko wax ak taalibe yu mag yi sëñ bi ne leen may seeq ak ñoom bàyyi leen leen suñu diggante rek ndax man sama sama coow lu mu tuut tuut bëgguma ci rax ngeen gis ku fi indi gileem du fekk du ma ubbi day toog fii ba ba ma génn bu ko joxee ay jooyam la cay boole rek làmb lam yoroon ciy poosam jox ma ñee nag ci demoon ko la ci rayal ganaar sax kala ko jox ragal koo taxaw jox ko ngir yàlla kon nag sama kooku coow si du ma ci boole der si jàmm eh, jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñu ngi ànd ak Serigne Cheikh Fall Mbawar eh, ñu dikk fii ci nga xam ne moom la nu fas yéenee àndal gis nañ ne bi jumaa ji àggee Serigne liw dafa jëloon di ko toggal ay añ wala añ juma yi yoo xam ne daf ko boole woon weeru koor yi wala ko nag adduyaa ma tamit yooyu doonu ci fàttaliwaat ndax eh, nan la ko sëñ bi tàmbalee ak lan moo doonoon cosaan li ci jumaa ji mu fay yóbbu añ yooyu xam nga bi ko sëñ far yu dëkkaloo fii boobu jumaa ji noppeegut buñ masaa di santaane tojum xeer dañ daan dem carrière buñ demee carrière ñibbisiwaat ne fii buñ bu ñuy toj doj yi buñ eh, demee carrière bu ñëw jallu dojee ay molon lay doon dañ koy tojaat fii tojub dojee waxtuñ ko masaa da ca daan dem dañ ca daan toj ba ngoon ñu a junneem junneem ne sooroor bi ku ci sooroor bu mag bi mu tudd Cheikh Ibra mun leen ku ci xam nu muy tudd xam na julli lekkaat sama junni neen Ibra Cheikh Ibra Fall laa ko nag bis ba ko bis ba ñuy eh, julli jumaa ji nag mu mu tudde ko Cheikh Ibra sëñ Aliou moo koy ngénte ay nagam yu neen fii la lay jël bu jëlee par ñaar nag wala ñett rey ko ñu toog koy añ yóbbu ca jumaa ja biñ koy def par a ju jot nag ba nag yi jeex nagi saret yi fii kii joxe woon sax bo dañoo mujj dindi balankaar yi defal ko yooyu fas léegi nag màggi kër gi naan ko sëñ bi lii metti na tee nga woon nga naan kii bi jàll na nga bàyyi ko am na góor gu ñuy wax Abdou Niang daa bindan liste bi naan ko nangami téeméer nag def nga ko ceeg nangam ak nangam sëñ bi ne ko bu ma ci kenn yutati bi liste yéen fii ne lii ngeen may nawal nawuma ko ndax yéen da ngeen a bëgg ko naagu te ko naagu daagu te ko daagu ñu te dëkk ba egg guñ ci ngaantu leen téeméer ak ñeent fukk ak ay ay ay juróom-benn fukki dërëm sëñ bi woo ña ko joroon yedd ca lool ne leen nag jur googu ma doon jox sëñ Touba ngeen doon ma ci yedd sàmm sa ko téye leen seen bopp ku ci ne saw yet nga na sama jur dee ci ndigal yàlla ko dugg na ci foo xam ne róor mi fekk ko te xam nga ña doon xeex ca basarit ña ña ngir yàlla ñoo dee ci ndigal yàlla bala yaamum inda rabbim yor soxoona ja ñooñu lañ ko wax ne waaye ñañ fa doon dajal dee nañ ba noppi ci déewuñu ci ndigal yàlla

ñu tëdd ñee daw te ñe dee tëdd sawara lañ jëm ñi dee ci julli di àjjana lañ jëm te ñoo bokk benn pàkk bu ñuy xeexe moo tax man leen koo dégg mun la sax xajatuma ci dëkk bi du diggante jameetaru ñaari mbaggam ak dëkk ba jikkoom ak dëkk ba euh, léegi sëñ bi ñu yow tudd euh, sëñ Aliou sëñ Aliou kun ko tuddee moom moom laal ne Cheikh Ibra da ne woon Sidna Aliou mag ma la ko tuddee foofu ma la wax na kaana yoxénoor yaay dane amadahu rabbul anam bi jundi am laakal isa li adadin laa leem wa fii moo iswara doo xam nga ko wa fii moo jàllil wasa nag abul useyn wa asan Cheikh Ibra dane sëñ Touba daalim ñooñe ñëw ci boppam waaye bokkan nañ ca wàlli ma te ne sidna sidna Aliou ba mu gisee na ma doon defee daa mujj ñëw ba dend ma ne ma yawee kan ne ma yëkkati sama poqtaan mu xool sama tampon ne ma yow aboori jàll fas na ma ak yow wëllëri bu bu ngeen dil si waatee jamono na nga ma tuddi doom nga xam ne kon ñëw nañ fi ay yoon yoon mu ne nag bi ma ko kii ma ko tuddi nag doomi soxna Fatou Diop sayer ji daa fekk néegum nday sëñ Mortala leewet ma doon ko ko safale xorom si léegi sëñ bi ñu ñëw ci. Euh, Ousseynou doomi doom Ali la ko tudde waaw. léeg-léeg ñu ñëw ci euh, ci nu mu tuddati ci sëñ Aliou euh, ak nangu woon addiya ak fi ñu toll fi ñu toll ñu gis sëñ Mountakha woote liggéey bi nga xam ne moo di liggéey bu mag boo xamante ni wax na ne trente trente sept milliards la. loolu yaakaar naa ne ñun sax duñ mag ci yoon wi waaye déggagun ko fi ñu ngi koy soog a dégg euh, liggéey boobu ak taxawaay bo yu mel noonu bu ko sëñ Aliou masaan a dégg yan doxin la ci daan dox xam nga milliard tur yàgg na fi daa egseegu doon waaye tur moom ba franc tàmbalee rek un million loo mën di tàmbale ci xaalis lim ba ci franc lay daanu ci wala du mat te bëri benn la fi sëñ Tuubaa dajale sëñ Abdou Lahad laaj fi million sëñ Saliou laajaat fi ay million bi milliard ñëwee nag dajeeg sëñ Muntaxa moo tax mu laaj un milliard te wa mas waccaxlu dax ban maskana taalumi woo dihil fikrati wa tafahumi la la la sëñ bi waxat xam nga gannaaw wa noonu ma waxan wa maskani sali minal fu jaar wam nun ala ahli bi maan jaar loola dem nan ba ba egg ci jumaa ji man wala fii jamaahatan tuqim asalawaatul xamsi daa ban yaakim loolaat nu dem ba egg ci maskana taalumi boobi naga ci desoon wa mawdihil fikrati wa tafahumi loolu nag sëñ Muntaxa mi ko laaj ci milliards yi mu ci laaj xëy na jamono dox ba liggéey bi mën ko ndax bu njëkk ku ci daan liggéey néeg yi ñax yi ñu daan def ak kii am caxat nga daan wut. di ko sàkkete nga xam ne boo mbooy mi ñëwee boo ci wéeru sàkketu dagg ñi ñi dem ba ñi seen barke egg ci findi fer am ko ñi naan xada ngi bëreeg taw te seelu ji yëgut waaye booba dañoo juum ndax seelu ji moom waajal na taw te taw ba ñëwgut ndax bu bàyyoon ñax fa mu tëddan bu ko fa bu ko fa taw fekkee day seey te néegam day seen léegi nag bi ñu doxee ba war a egg ci milliards it moo tax suñ mun taxaa laaj lool te gannaaw dañ ne dañ ne kii amal almadaris xabla masajid waaw gannaaw nag daara moom mu xam-xam ce daara lay jóge te daara daaraay samp juma te juma joo fa gis xaral na nanga mi liman te faatiye manqué gudd wirgil barke bi yàlla dul jeex jërëjëf kon sëñ bi ñu ngi ci Thialé gars yi dinañ wax naa nu mu tuddati suufas marché gën euh, suufas jàkka gën su marché waaye lan tabaxe marché moom lan tabaxe jàkka ci marché la jóge waaw suufas suufas marché suufas jàkka moom dama leen naan suuf su ne day am fadila du tax si si yéen ni yàlla defee sëñ Tuubaa mu gën ñu bari yonente bi gëne ko ñu bari wali yi gëne ko day xam nga waa Badar donc dañ ne seen puritu gi mu fas ya moo gën a moo ëpp maqaamam doole wali yi ba nga gën a naw yonente bi ñu tudd ko lu ko neex mu ca la defale ñooñu ñu am loolu fi ne suuf jàkka dama li ngay raay ci jàkka ji raay ci sëb ja ciment bi ñu tabaxi jàkka ah, ja mu am lool biñ defee fosse septique bi ba nga xam ne lu ci génni nga tóori ko loolu la ci laal nga raxas kon moyit yàlla fadilatu tax sise yi boobu nag moo may jàkka lii may marché le ci marché lay <laughs> kon sëñ bi ñu dem ci laaj bu mujj ndax tëj jataay bu jëkk bi eh, sëñ Aliou yaakaar naa ne da nga koy ñaanal defal ak ñaan eh, goo xamante ni yaakaar naa li ci jour euh, ñaan googu lan mooy sabab bi lan mooy cosaan li cosaan li de mooy dafay nekk lan Cheikh Ibra di ko fi liggéeyal añi ajuma yooyu nga wax mu daa ko def wére dina te diiru lim tëdd nanguwut añi ajuma yu manqué ndax booru màggal euh, bésu kii boobu koy tudde te alors bay kare la ko daanee lan te teewul bis bu set day làmb li na nañ jëndi nag te nag yi ba mu ko tàmbalee jënd mbàkke lañ ko daan jënd booba Tuubaa amagul dara nag juróom-ñaar téeméer rek juróom benn yi bi muy bëgg a dem ajjuma la a a mu la ñuy def waxtu wu del see ñi wàcceel koy kaamil jàngal koy xasaayit ne kaamil yi sax moom ajjuma jam ba léegi ajjuma ji jot man ma wàcceelul ko fii ay kaamil ña ko saxalan daara kaamil ci 68 ba léegi mosuñu ko raté moom bis ajjuma jot ñu jàng bis boobu nag la dajale waat nag jàngaat lu bare bare eh, xasaayit rek defal koy bernde ñaanal ko yoolam yokk ci sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra rek la 21 janvier nag lay dajal di altine jii ñu jëm bu deel ci altine tey jii nde bu deel di fukk fan ak ñeent ci weeru uh, rakkaat ji mooy bis bi ñu koy defal cérémonie bi kañ lay tàmbale cérémonie bi moom mooy seen siir la woon yéen rek nun xasida ak alxuraan ay sun cérémonie waaw am na fi de màggal yi dañ koy def ci màggal waaw ñu ngi koy def ci màggal yi waaye fi ne bis maanaam am na béréb sàngam taxul mu daj dëkk bi borom ci la saxal ñu ngi bu baax a baax sëñ Cheikh <laughs> Fall jëkk bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane sëriñ Aliou Fall Mbowar xam na ci kanam tuuti ñu dellu si ci ñaareelu xaaj bi incha allah rabbi kon altine bii di ñëw bu dellu see mooy doon màggal gi incha allah rabbi bi ci kër gi nga xam ne moo di paaleen ñu sant ñëpp gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah